voilà mbokk yi comme ni ma leen ko waxee maa ngi togg ak euh, sama papa euh, Moussa Gningue alors ma bàyyi ko mbokk mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu daal di yaatal salaamaaleykum papa maa ngi siyaar. jërëjëf euh, Cheikh mar lan moo dugal Moussa Gningue ci làmb alors xam nañ la nga bëgg football lool lan moo dugal ci làmb. waaw li ma dugal ci làmb dafa yomba yow tam xam nga leen tam mu yomb parce que ñun quartier mbër lañ quartier mbër lañ te ñun suñu génération ak suñu rakk yëpp dañ doon daje. tey jii su ma la waxee ne mbër yi bëri fii sax dàquñ moon bëri sama frère sama frère a ngi nii dàquñ moon bëri parce que fii ku fi dëkk da doon bëri sa sa sa sport yi yëpp loolu la kon donc ci biir loolu loolu moo jox ñu bëre ñaareel ba nag ci biir loolu ñu amoon ay yeneen mbër yoo xam ne yu mag yoo xam ne ñoo doon jóge seen seen dëkk di ñëw dal fii pour ñëw bëri si arène sénégalaise fii parce que arène sénégalis mu ngi fii même pas cinquante mètres donc ci biir loolu ñun par dimanche dañ daan dem foofu di di euh, nekk fa euh, di fa bërintu euh, yenn saa yi ñu ñuy jox ñuy randang sabar yi maanaam tous pour gars yi ñëw donc ci biir loolu loolu moo ñu dugal moo ñu dugal ci ci ci làmb ji waaw bi ñu duggee ci làmb ji noonu nag ci biir loolu mbër yu mag yooyu ku demee ni Cheikh Mbaba Sow kër yetumaane la doon ngemboo ku demee ni Thérèse Ndiir ak ak Modou Dieng ñoom ñu ngi doon ngemboo kër yuusu Youssou Youssou Youssou Diop góor gi Youssou Diop waaw ku demee ni par exemple euh, firdu yi ñu ngi doon ñëw fii kër ñoom euh, Duudu Xarma ci biir loolu ay ay ay ñu ngi kuling danso ñooñu foofu lañ foofu lañ doon dal moo tax ñun ñu làmbe loolu moo indi loolu mais mais kon qualité mbër yi ñu daan gis euh, waa Fass xeetu technique yooyu noonu xanaa li ñooñu ñëpp daan daje la waaw parce que ñun xam nga suñu daan dem dañ daan dem ne ñu ne 3 heures 4 heures rek nañ leen dem géej amul footballkat amul kenn ñëppay dem suñ demee ñi war a bëri ñoom dañuy bëri ñi nga xam ne dañu war a toog téye yére yi dañ koy téye ñi nga xam ne dañu dañ doon def sport mun nañoo daw daw leen moo tax ci biir loolu dañ daan def dañ daan recycler wu ci jamono jooju nga xam ne kii lii lii mu mënee su ko defee su daanes kii kii da koy wax ko lii mënu ma la cee daan soo ne mënu ma cee daan nag kooku ñoom ñaar ñu def exhibition boo xam ne da ngay xam ne léegi léegi euh, système bi yow da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy dindi parce que kii su la defee nii nga mën koo see daan waaw ba tey comprendre nañu nii ni euh, engouement moo la ci yóbbu mais mystique bi lan moo la ci dugal. waaw ah, mystique xam nga mystique saa yoo ko saa yoo si duggee rek wóolu dañ lay wóolu ku ku ñu wóolu la. Ah. te ci biir loolu man dama liggéeyee euh, société bu ñu doon wax ONCAD te xam nga ONCAD soo ko mosee dégg di nga dégg gerte di nga génn ceeb. di nga di nga di nga xam seko te seko soo xoolee bu baax c'est mystique seko. ñu doon seko ñu doon ñu doon jaay gerte yi. ah dañ doon dañ doon am sëriñ ba nga xam ne dañuy def lu leen neex te kenn du leen wax dara ah si jamono mooy ker euh, caisse de précaution bi tam ceeb bi noon noonu noonu la doon demee donc ci biir loolu dañ doon dem di contrôler ay ay ay ay dëkk ay dëkk suñ demee suñ dalee nit dinañ ne ah kii kat ñaankatu yàlla la nga xam ko xaritoog moom nekkak moom yenn saa mu adapté la comme doomam nga xam ci lu bari te boobu comme ñun jàngoon nañ ba nga xam ne dem nañ am nañu un niveau intellectuel boo xam ne dem nañ ba troisième secondaire en 68 donc loolu ñu doon wax dañ koy bind donc loolu xam-xam lay nekk lu boo xam ne di nga ci xam lu bare bare bare bare ñun loolu moo ñu dal loolu tax ñu nekk boole nag gars yi am confiance bu rëy ci man ba xam ne euh, ci recherche parce que daf ma permettre woon euh, suñuy dem yooyu di contrôler seko yi dafa noonu recherche tu ñu ci yàlla nit ñi mën a ñaan donc ñu leen ñu leen di xam pour su ñëwee ma boo leen xale yi mais su bi ma demee nag ba ci biir ba mag ñi dem léegi nag ñu ne ma yaa fi donc yow yaay dox loolu donc si laa commencé dox loolu daal waaw benn moment yàqalul woon liggéey bi nga doon def waa xam nga boobu ci biir loolu bon comme 68 grève la am bi grève bi amee ñu bàyyi école donc loolu ma dem ONCAD daf ma permettre loolu ci biir loolu ma am ci connaissance bu bari parce que directeur bi ma yore woon dafa nekkoon sama xarit lu ma neexoon rek daf koy neex daf ma bàyyi woon les aller du ma jékki-jékki rek ne ma fii nga nekk wala fii nga nekk man fu ma neex laa doon dem contrôler moo tax ma amoon possibilité dem fu ma neex hmm. ci contrôler loolu moo tax mu moom moo tax ma amoon connaissance mystique boobu nga xam ne moo moo moo moo moo ñu doon dimbali ci mbër yi d'accord alors dañuy dégg parfois gars yi di expliquer ci wàllu mystique euh, ni mystique ay 10 pour cent la wala cinq pour cent la ci làmb ma gis coono yi nga xamante ne suivre naa la tuuti yi nga ci daan daj est-ce que réellement mystique ay 10 pour cent la ak yooyu. waa xam nga mbër euh, day nëbbu. li koy jëriñ da koy soofantal. waaw da koy soofantal da lay wax na appréhension ne eh man yi nangam nangam damay entraîné nangam entraînement baax na lool. cinquante la waaye mystique. ak diététique ak massage cinquante ñoom ñëpp ñoo moom ngay boole. ñoom ñëpp ngay boole ngay boole. soo ko boolewul du dem ngay boole mystique li ngay lekk euh, médecin bu lay xool masseur bu lay yow ñoom ñëpp ñoo bokk cinquante la boole ak entraînement. boole ko entraînement donc làmb à 100 cent dafa dafa ànd ak dafa ànd ak euh, mystique. waa xam nga sax mu ànd ak mystique maa wax la ko tey jii parce que mun mënu ma mënuñu maa fay 100 millions. ah mu jël cinquante millions yëpp def ci kooku jaral loo xool rek kooku la ko jaral lu la jaral la loo xam ne lu réalité la parce que mu ngi mel ni ma mën la wax ma wax la dara tey jii nga dem ci nit mu ñaanal la mu dem ne la kat soo demee nii ngay daanee waa ji nga daan ko nga daanee ko noonu nga retourné waat nga amaat benn bëri mu ne nii nga koy daanee muy résultat bu concret mhm. nga demaat une troisième fois daanaat euh, mu ne nii ngay daanee wala da nga koy dóor mu daan nga dem dóor ko mu mais kooku il faut que mu yàq sa bopp il faut que nga gëm ko. effectivement te gëm-gëm boobu nag rek mooy mystique si ñaan yàlla li ñuy wax mystique dëgg la xam lan la. Mhm. ñaan yàlla ñaan kii mystique ñaan yàlla la. ñaan yàlla la que la la la la la la la ceddo ba di def ak li borom Christ bi di def. Mhm. ak li borom sunguf bi def. yëpp benn la ñëpp ci yàlla lañ yaakaar donc yàlla mooy yore décision finale. la yan combat ñoo gën a métti mystiquement ci yi nga dund. waaw ah, combat yi ma dund ci mystiquement mooy Moustapha Gueye Alioune Diouf. Alioune Diouf Alioune Diouf. Gris Bordeaux Bombardier. Zallo Zall Zallo Ndiaga Diop. Moustapha ah. dund naa ci mystique bu bu bu bu métti. ba mu dal la yow sa bopp yow sa bopp yow yaa ngi ko yow miy préparateur mystique bi da ko da ko sentir. waaw dama koy sentir dans la mesure où man ci biir loolu am na ci loo xam ne lépp ci man lay jaar. Hmm. donc man su ma su ma sentirul mun naa am mbër mi du sentir parce que ci biir loolu sen sentiment bi ma ciy am damay am yéeg yéeg te yéeg yëg yenn saa yi dafay dimbali nit ci li nga xam ne moom lay def hmm. xam nga loolu la mais ci biir loolu la loolu mooy euh, ni ñu ko doon defee rek man su ma ko yëgee nekk dama koy transmettre mbër mi mbër mi il faut mu yëg ko parce que mbër mi day xool sama visage day xool sama comportement sama doxalin nu may defee pour mu xam ne kat tey jii kii fi mu demoon am na fi satisfaction wala amu fi satisfaction. alors euh, Moustapha Gueye Alioune Diouf yéen a am ndam. Ah, alors ak nu mu métti métti nan la méttee woon noonu te pourtant yéen a am ndam. waa ñu déedéet xam nga boobu jamono Alioune Diouf dafa daan moromu Moustapha Gueye yëpp. booleeg daan Moustapha Gueye boobu Moustapha Gueye bëreegul mu daan ko euh, kii nu mu tudd Colobane. kolobaan la Mbapat Colobane. ñu ñëwaat ñu boole leen euh, tubaab joor boole leen fii ci mairie bi. Mhm. pàkk boobu Moustapha Gueye fayu muy 1 mhm. léegi nag yàlla def na ñoom ñoom nag bi ku nekk daane sa génération ba ñu ñëw nag ñu boole leen ñoom ñaan ñu war a bëre mun a bëre. muy muy muy diggante séeréer yi ñu doon wax écurie séeréer ak écurie Fass donc mu nekk lu yàgg loo xam ne ci jamono Mbaye Guèye la ak Robert mhm. tension boobu moo continué waat di ñëw ci diggante Alioune Diouf ak Moustapha moo tax mu nekkoon lu lu metti loo xam ne képp koo xam ne Fass waa nga rek jóg nga jógoon nga ci ci événement boobu waaw. alors nga ñëw ci Gris Bordeaux Gris Bordeaux Bombardier lu tax. waaw Gris Bordeaux Gris Bordeaux Bombardier dañ doon wax ne Bombardier moo mun Gris loolu ñëpp doon wax bi ma jëlee waxaaleel ko 100 millions bi ma bi ma bi ma bi ma ko waxaalee 100 millions bi ma bi ma waxaalee 100 millions Gris Bordeaux gars dañ ma ne war loolu waxaale moom noonu ma ma ne ko ma ne ko ci biir loolu euh, Gris ñeme na ko kon mën na bëreek moom mhm. gars yëpp xaw maa boycotté waaye dafay am loo xam ne soo ko gëmee soo ko gëmee rek mhm. da ngay da ngay dem te man gëmoon naa entraînement Gris Bordeaux parce que dama ko daan yóon yóbbu muy entraîné boxe ci Idrissa Dione ancien champion du Sénégal sa Dione foofu laa ko doon yóbbu daa naa ko yóbbu musculation yoo xam ne maa ko doon yee trois heures du matin à 4 heures muy daw diggante euh, Médina ba yoof retourné waat su ñëwee nelaw ba midi une heure deux heures mu ndekki demaat demaat boxe kon donc gëmoon naa ko gëm boo xam ne xam naa ne mënoon mënoon naa ko booleeg waa ji leneen li ci desoon rek mooy ci su la préparation mystique nga xam ne comme moom dafa daanoon Moustapha Guèye donc ñun dañu war a jël revanche parce que ñun nag suñu suñu suñu problème loolu la woon ñun ku daan musa daan suñu mbër rek dañ lay may dañ lay bàyyi bàyyi xel mm-hmm. loolu tax ci biir loolu combat boobu métti noonu daal mu ñu dégg ci ay ay voyage dégg ci ay affaire u jinne sax dégg nañu gars yi naan dañoo jàpp jinne maa ngi woon Demba Diop jàpp nañu seetu bu gudd ba génn gars ne jàpp nañu waa ji génnee nañu affaire bi ci biti alors xar bu ñuul bi yooyu yëpp fekkee naa ko maa ngi woon couvert waaw mais gars yi dañ lay wax ne gars yi xam nga comprendre ñu am na ñoo wax ne xaar la am na ñoo xam ne béy lañ ñu wax. waaw kon donc. jax lan la woon lan la woon jaxase na woon jaxase woon na ci seen biir waaye béy bu ñuul la woon. waaw béy bu ñuul la woon. kon donc teg mu nekk combat combat bu bu am densité trop. Hmm. mu am combat boo xam ne ñoom tam ñun dañu buggoon combat bi trop. te xamoon nañ ne su le plan entraînement. Gris moo gën a euh, dëgër. que Bombardier mën na koo ëpp corpulence mais du loolu donc ci biir loolu leneen la ñu doon attardé wu mooy de sur le plan mystique nag dañuy dem nag préparé ba nga xam ne euh, rok lañ waaw mm-hmm. ah, moo tax ci biir loolu yàlla may soo gisee bëri ba neexul parce que waa ji Gris ko dóor ñaari ku muy fayeeku si rek daan alors Gris Bordeaux euh, ki nga xamante moom mooy Ama Baldé for nañ ci wéewu bay nii presque ay ay ci des alors mu nekk combat boo xamante ne dana métti lool lool lool lool ci côté bu ne parce que yaa ngi doon wax sànq fil euh, pëlu firdo yi foofu laay <laughs> tëjee el alors pëlu firdo yi ak seen mystique yi tout alors ñu gis booy amaa Baldé nekk koo xamante ne jamono jii alors mu ngi ci yoon macha allah yàlla na ci gën a nekk alors ngeen war a bëreeg moom ah, du yomb de. waaw fanaan nag du yomb nag. waaw du yomb waaye nag dama lay wax ne la. Hmm. Fass li ñu xam. suñ ko extérioriser xaw ma ndax dinañ ko mën wala déet. xawma nu muy demee daal waaye li ñu xam suñ ko extériorisé amul ku leen mun de billaay wallaay tallaay su ñëpp dajaloo ba ne nañ def nangam soo ko soo soo demee parce que ñun li ñu xam mun naa la waatal ci yàlla ne beneen écurie xam ko tey jii su duggee euh, euh, écurie Ama Baldé bul fàtte ne bul fàtte bul bul bul bul fàtte bul fàtte ne ñun avant avant avant sax juddu Ama balde laay wax Falaye lañ doon topp. d'accord su daan ñëw da daan joree liyu 39 jaar 22 jaar 43 euh, ñëw fii fas bëri si fii si làmb bi moo sax ñu xam Falaye Baldé bu baax man li ma xam ci Falaye Baldé sax xam naa ne Ama xamu ko ci. parce que ci biir loolu soo xoolee Falaye Baldé gaabunkoo la Guinée Bissau la dëkk dëkk bu ñuy wax gaabu. mook mook moom la woon ak ku ñuy wax ñunkuliñ danso ak karamo sadio ak Fodé Fodé muy ngi tudd euh, Fodé Duusu Ba Duusu Ba bi mooy turu yaayam mais la tudd Fodé Ba Fodé Ba tudd mais ci biir loolu nag turu yaayam lañ ci boole xam nga làkkat euh, Fodé Duusu Ba kon donc xam naa leen lu bare bare bare bare bare waaye ci biir loolu Fass daal euh, su ma ñoom dinaa xaar tuuti nag pour bëree Gris Bordeaux dama koy bàyyi ba mu entraîné ba mu pare parce que Gris su paree mun naa am dara ci Ama. bu paree physiquement waaw su paree physiquement waaye Ama tam neexul a daaneel parce que xale la. te en général xale mooy génnee mag ci làmb waaw. mu nga doon wax ni euh, cumukaayu faas yi bokkoon nga si ñi daan toog ci cumukaay. waaw cumukaayu faas de 69 bi ma ñëwee 69 ma ñëwee faas. ba fi ñu toll nii yaakaar naa ne bi ma ci jógee yàggut. ndax li ma ci jëlee mooy. làmb moo dimidoon noo xamante ne lamb dafa doon loo xamante ne doo jog force ne da ngay ànd ak nit ki par force di tey bëgg nga ànd ak moom nga ànd ak moom mais ku force ku lu bëggul nga ànd ak moom soo forcé ànd ak moom laneen mën na caa am te coono bi nekk ci biir làmb kuñ ko teggil bàyyi la tooglootuñ la ci biir làmb indiwulee coono da ngaa war a sant surtout nga jëm mag surtout nga jëm mag ndax coono ci nekk ak risque ca mbër yi daanaka xamuñu li ñu seen ginnaaw di daj waaw bi may ñëw ci mi ay faas ay pa laa fa fekkoon ñu fa doon nekk booba temps jamono yi mbay géey mel ne ay waa mel na paa bu ñu wax wee Seydi wee Fati paa xees ni ñu koy wee Seydi de kon Grand Dakar ay ay grand yoo xamante ne ay Moussa Diop Sesman na ah, Ndiob kii ay Ndiob Diaw ak ñoom euh, Pape Dieng Balake bii nekk si defem ak ku daan wax ja dëkkoon caaro yi ñu daan wax jàmbu xees ak beneen jàmbu gàtt boo fi nekkoon ak ku daan wax yëgal yaar ak Seydou Khoule papa wu ñoom dijee bi liggéey pii la xaw ma ak euh, Saliou Khoule seen papa moo doon menacé wu mbay gi temps yooyu ñuy ne ci cumikaay ni ma nekk xale bu ne seen ginnaaw ñu may yónni may dem ak a ñëw ñuy dema dema dem ba mujj gi nag bi nga xamante ne yëf yi dem na ba Moussa ñi nga téye loxo yëf yi ci loxoom daanaka li objectif yi mu ne naa koy toogal may toog cumikaay commencé toog ci fin wu carrière mbay gi def carrière Mor Nguer ba mu jeex ah ay tubaabu joor combat yi nga xamante ne ci la ko Moussa ñi ngi préparé muy dóor bapkan bu caaro muy dawak muy daan dóor docteur muy daanook ràññee yooyu yëpp bi mu koy def may toog ci cumikaay li léegi ba euh, Moussa Moustapha Gueye ñëw may toog cumikaay Moustapha Gueye ba ñaari combat laa toogal ci cumikaay Moustapha Gueye muy combat mag Yékini daf ma fekk Italie ak combat mag Balla Gaye numéro 2 deuxième combat bi Italie ma fekk ci test yëpp maa toog cumikaay Mbaye Gueye. Moustapha Gueye cumikaay Gris Bordeaux it ba di toog ba ci combat mag Bombardier yoon tukki ñëw diggante bi encore euh, ay. rëq-rëq yu ndaw ndawaan moo léegi ndax man ciment laa benn yoon laay tooy ku ma xam-xam na ma ak Moussa ñu ngi sama xarit la kon ku wóolatul Moussa ñu ngi doo ma wóolu may ku ma wóoluwul du ma du ma la ñuuxu ma jël rekkiil taxul nag ba nega ni terewul ma di leen yéene ku ci bëre ma yéene la ndam écurie Fass écurie kuy bëre ma yéene la ndam lu ma mën ci ñaanal la pour nga am ndamit danaa ko def ni écurie di mbindoo nii nga xamante ne léegi victoire bareetul ndax du la metti ah dina ma ah dina ma metti ndax mbëri bu ñu bëree pare day yéem ñibbi ku leen gis boo xoolee ne mbër mi moo bëre daanu itam mbër la da nga naan mbër la a bari doole ca mbër dof la doona ko yore daan nañ la doona ko ñaw doo ko sabote mais man ku ma gis dama ah sa booy yi de ñu ngi leen di bëgg a ne nii gén mënumaa ne bëgg naa wala ma bëgg beneen bëri wala leneen kon ba ne waxatuñ ko muy man muy ma ne ku ci nekk ay nit dogale nañ la di la interpellé bëgg laa jox mbër wala yaan mais bëgguñu mbëru ginaaru faas moo ñu gënal luñ mën a am mbër mu newul face soxla wuñ ko ci mystique loolu yombut jëkku mbër ba du ñëw ci làmb ji wala kii bariwut lu muy am dañ koy wàññi ay benn benn làmb rek yu wax te gis naa arène Sénégal gi Ibou Senghor Souleymane Diaw Ibou Senghor ñëw ci cumikaay yi toog di nelaw waaw toog di nelaw ñu naan Ibou Senghor ngay nelaw nelaw bañ ne bi ñu naan grand na ko Ibou jógal Ibou Senghor fi jóg di fudd bébu li ñu naan eh mi ngi nelaw mu jóg ah fudd fudd ba mu yàgg mu daal daw dem daw dellusiwaat ñaari ñaari aller retour la daw rek ñaq ko arbitre soufflé combat bu bu gaaw la daan Souleymane Diaw. moom moo doon nelaw. moo doon nelaw Mbaye Gueye ak Samba Diaw arène stade Iba Mar Diop stade Iba ah, bi ñu songoo moom moom Mbaye Gueye Samba Diaw mu daan Samba Diaw bi mu daanee Samba Diaw bi muy ñibbi avant muy génn biir stade mënatut a gis. mënatut mu gis avant muy génn stade gis dañ ko jàpp yóbbu mënatut a gis gisatul mais da fekk na daan na waaj ba noppi. moo tax nga ne lamb yéeme na. lamb yéeme na lool. Ibou Senghor keroog bi ko mbéy di daan séeréer yëpp dañoo bokk daggaloo ne doomu aadama ku yàlla bind mënu koo daan ñu jiital saltige yi aba yawal wenn saltige bu ñuy wax joomaay maa ngi fàttali ko mu sol tiset bubb la doo séer bu xonq góor la de jiitu tàngal loxo càmmoñ bi séeréer yi topp ci ginnaawam muy dox di ñëw ñu ne ku yàlla bind mënta daan Ibou Senghor bis bu tey keroog la ko mbéy gee doo ko daan combat yi ci jiitoo yëpp dañoo mass niin kon làmb moom làmb la ni ñu ko tuddee la waaw làmb